رباعي في إخدام خير الورى بدا وفي كل سهر زيد ربه وفي سفر di leen ndokkeel di leen balu di nuyu ki nga xam ne mooy kilifa barab bi ñu teg ko ci loxoom muy suñu mag Serigne Moustapha Diatara di bu baax di ko ndokkeel ci liggéey bi ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la àndal di saytu barab bi di fi liggéey liggéey bu am solo rawatina jotaay yi ñuy def di tasaare xam-xam di ziyaare ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal nii sëriñ xat fakka sëriñ Isaa euh, <coughs> di bég lool nag ci jotaay bi ñu fekke ñaan suñu borom fekkewaat ko at yu bari di nuyu bu baax a baax nag suñu sànq si nga xam ne ñooy waa daayira nooru daare ni eh, ahlu mbàkke xam naa foofu moom aw ay nag du fa war a du fa war a doy <laughs> daayira boobu moom yaakaar naa ne ay ginaar ak xeet yooyu dina fa war a dina fa war a kii lool di leen ñaanal bu baax liggéey bi ñuy def ñoom it suñu boroom defal leen ci tawfiq ñu dajatee ngërëmul sëriñ bi suñu boroom àggale ko fi nga xam ne fa lañ ko yéenee yeggale ci liggéeyal seen maam Cheikhul Khadim radiyallahu anhu xam naa waxtaan wi nag nun day mel ne dañ koo xam xat dañuy ubbil sëriñ Issa Gueye ndax ginnaaw moom mooy économiste dëgg nun moom dañuy ñu naan dañuy taxaan rek euh, moo tax ñu bëgg a suñu waxtaan rek ci ay ñaari tomb yoo xam ne day laltaay waxtaanam mooy ni mu ko xat fàkk waxe lu jëm ci wàllu euh, culture relation bi mu am ak développement ak njàngaleem sëriñ bi yi ci nekk ci ay principe yoo xam ne mën naa tax ku ci sukkandiku mën a développer réew mi ngir laltaay lu mel noonu dañu wax rekk ne Sénégal euh, ba tey mi ngi dund ci ay jafe-jafe ci wàllu économie doonte liñ wax ne mi ngi ko am na ko ci ay euh, koom-koom wala ay potentialité ni ko ni ñu koy faral di waxe lim ci am bari na am na ay ressources humaines mooy nit ñoo xam ne ñu amay xel lañ ndax dañuy wax ne Sénégal da bañ daan wax amuñu or amuñu jamaa amuñu pétrole loolu lañ daan wax waaye am nañ ay niti qualité am nañ nit ñoo xam ne am nañ xel kon loolu mooy ressources humaines am nañ ko léegi tey ñu ngi ciy boole ne ñu ngi am ay yeneen ressources yoo xam ne am nañ ko yoo xam ne yu naturel la mooy yoo xam ne comme moo xam ne suñ borom moo ko def ci nature bi waaye ba tey bu ñuy natt Sénégal ak yeneen réew yi dañuy gis ne moom dafa bokk ci réew yi nga xam ne euh, buñ lee bu ñuy classé ñi ñi ñi jiitu ci wàllu koom-koom day mel ne ca cat la lay nekk ndax bu ñuy natt yoo xam indice de développement ci Sénégal ca rangam sori na yaakaar naa téeméer rek juróom fukk ak nangam wala juróom benn fukk ak nangam du sori ko xëy na soobu sëriñ Issa dina ko leeral ba tey sax dañuy wax ne Sénégal bu ñuy bu ñu koy màndaxe ak pays yoo xam ne ba ñuy am indépendance dañoo xawoon a tolloo nga xam ne ay lu mel ne Corée du Sud Corée du Sud ñu bari dañoo xam ne bi Sénégal di am indépendance ak jamono yooyu moo Corée du Sud bu ko Sénégal jiituwut it ñoo xawoon a tolloo ba léegi am nañuy xol lu melni Tunisie nga xamné dafa xawa tollo ak Sénégal ci population xawa tollo tolloo fu ñu niñ tollo ci géej gi xaw a ci yu bare bari waye gis nañ ci walu kom kom niñ ñu xawa niñ ñu xawa dominer lool mu melni kon dox biñu wara dox ci walu kom kom xawna xawna dess naa des te nag bari na lu ñuy dégg ñuy def ay islahat iqtisadiyya manam ay réforme jamono ji nekk nga dégg ñu ñu yax programme de développement wala politique de développement yoo xam ne yuy bees la yu ñuy teg ngir réew mi jóge ci ak ndóol euh, jëm ci développement waaye ba tey day mel ne yooyu yëpp rek taxul ñu euh, jóg ni mu ware ba ci plan bu mujj bi nga xam ne moo fi nekk nii ñu koy wax euh, Sénégal émergent plan Sénégal émergent PSE kon lu mel ni tomb bu mel nii lu baax la ñu waxtaan ci yoonu murit naka lañ ci mën a jaare naka la na ci naka la ci Sénégal mën a sukkandikoo ba développé wu ndax dañoo toll ci jamonoy mondialisation mooy àdduna bi dafa xaw a gëndalikoo euh, ci wàll yu baree baree baree bari kon day mel ni réew bu ci nekk défi bi gën a mag mooy nay def ba jariñu ci mondialisation boobu intégré wu ci waaye nag sukkandiku ci say valeur yi nga am yow ak sa culture bi nga am dafa mel ne loolu défi la ndax am nañu jàpp ne sax loolu mënta am am ñu jàpp ne nit ki daal dafa war a bàyyi léppam rek seey ci mondialisation mel ne di dund ni pays yi développé yi di dundee xalaat yi ñu am ñuy xalaate noona seen style de vie nañuy dunde ñuy dunde noona kon waxtaan ci ñun Sénégal trois bi nga xam ne moom lañ am rawatina yoonu murit nga xam ne suñu patrimoine la njàngaleem Serigne Touba suñu patrimoine la naka la ñuy def ba développé ci man cee sukkandiku ba développé réew mi loolu am solo waaye loolu kon day jar ñu waxtaane ndax loo xam ne culture la loo xam ne ay valeur la ban relation la am ak développement xam nga am na jamono yi ñu doog a am indépendance am na ñuy bindkat yu bari yoo xam dañ dañu jàpp ne suñu culture bii ñu am ci Sénégal dafay dafay gàllankoor développement dafay gàllankoor développement ñoom xalaat yi ñu amoon ci réew mi suqaliku jàpp nañ ne ak ñun valeur yi nekk ci société bi am nañu jàpp ne méngoowut ba tax gàllankoor la ci suñu suñu dem am na ñoo xam ne sax daanañ dem ba àgg ci ne sëriñ si ñi niñ nekkee ci àll bi ak ni ñuy ni ni ñu yilife nit ñi ak ni ñu leen di yare loolu dafay juyoog politique yi ñu bëggoon a tëral pour développer ci réew mi yooyu ci jamono yi année 60 yi am na ñu daan bind di wax yu demee noonu ngir wane ne am na ñoo xam ne dañu jàpp ne culture dafay freiner développement bi ñooñu nag ñu ci bari mooy ñi nga xam dañoo gis rek ne. développement nam muy na ko tubaab bi xalaate di ko dundee noona rek ci la ñëpp war a jaar am na ñu gisee noonu waaye léegi dem nañ ba àgg ci di gis ne nit ki ngir mu développé wu fokk mu sukkandiku ci culture boppam waaw ah, maanaam mënoo développé wu ci culture jàmbur lu tax mooy culture mooy yow li nga xam ne booy xalaat moo lay orienté maanaam li nga xam ne moom nga jàpp ne moom nga gëm di say aada di say xalaat nga xam ne ci ngay natte lu rafet ak lu ñaaw lu baax ak lu bon loolu boo amee benn politique de développement boo xam ne méngoowut ak culture booba nit ñi duñ gëm politique boobu duñ ci engagé wu duñ ci adhéré wu loolu day tax suñu réew yi nga xam ne dañuy dem banque mondiale moo ñuy tëralal wala ñuy wut ay experts yu jóge ci biti yoo xam ne buñ ñëwee duñ xam ni nit ñi xalaate duñu sàmmonteeg pas-pasi nit ñi duñu sàmmonteeg nit ñi aada yi nit ñi tëral rek ay programme nit ñi duñu yëg ne sax li concerne na ne leen ndax dëppoowut ak seen culture kon jàpp ne nit ki balay développé wu day fekk mu lim tëral war caa jaar dëppoog gis-gisam dëppoog pas-pasam dëppook li nga xam ne ay ay aadaam la kon ñooñu dañoo jàpp ne mënuñoo defar plan du développement ci ab société te bàyyiwuñ xel valeur ya nekk ci société ba ci boppam te ku ne xam na ne société yi bokkuñu ay valeur bokkuñu ay gëm-gëm bokkuñu luñ jàpp ne li ya baax ak li ya li ya baaxul kon foofu ñoom ñi gis ne loolu munta ñàkk ñoom ñoo xalaat ne kon culture lu am importance la ci bu ñuy tëral pexe yi ñu war a suqalee am réew mu bañ a doon lu ñuy jëggaani mu bañ a doon lu ñuy jëggaani am na ay gëstu yoo xam ne ay sénégalais yoo xam ne def nañ gëstu ci wàllu googu euh, am na IFAN am na ay chercheurs yu fa nekk yoo xam ne dañ doon def rapport ci wàllu économie ci Afrique fi mu toll ci seen rapport ba ña nga fay junj lu demee noonu ña nga cay wax ne Afrique fokk mu ubbiku ci biti maanaam ci mod li ñuy tuddee modernité war naa cee ubbiku waaye faw mu sukkandiku ci culture boppam ah base culturelle bu dëgër pour mën a développé wu nga xam ne dañ ngay boole ñaar da ngay ubbiku ci biti waaye fekkte yaa ngi taxaw ci base culturelle maanaam yaa ngi taxaw ci qaida thaqafi bu dëgër dëgër doog a mën a doog a mën a doog a mën wax ne l'Afrique doit avoir

ci taxul ñu bàyyi seen culture seen développement dañ ko samp ci seen culture bopp ay japon ak yu deme noonu di réewi asiatique yi gis nañ ne ñoom taxul ñu bàyyi seeni aada fekk yeneen occidentaux yi ca nañuy seeni aada ngir ne bala ngaa développé wu rek fokk nga doonu nga doonu nga doonu occidentaux nga bokk ci ñoom kon loolu rek pour tënk la woon ci wane ne ñun kon bokk na ci xëy na suñu gàllankoor ci suñu développement mooy politique yu bari buñ ko tëral xëy na ñu duñu woo ñu mel ni sëñ Issa nga xam ne xëy na euh, xam nañ suñuy aada ak suñuy valeur ba noppi xam leneen waaye lu ci bare bari ay tubaab ay consultant la ñuy indi waaw wala waa banque mondiale ñooy ñëw wala waa FMI ñooy ñëw imposé ñu ay politique wala boog ñoo ñu koy tëralal ca bu ñu koy tëral duñ bàyyi xel ñun njàngale mi nga xam ne valeur yi nga xam ne ak patrimoine wala turaas bi nga xam ne am nañ ko ca loolu yoonu murit ak njàngaleem seriñ Touba ci yi nga xam ne Sénégal buñ ko doon bàyyi xel bu ñuy tëral yoon yuñ jaar ba développé mënees see jaar développé toujours rapport yi nga xam ne ñu ngi koy bind ci Sénégal. ñu ngi koy bind ci yoonu murit ñi ngi koy bind ci toujours dañuy wane ne Sénégal yoonu murit am nañ aw dundiin am nañ façon organisation boo xam ne buñ ci inspiré woon mën nañoo euh, mën nañoo mën nañoo développer Sénégal bu yàggul yàggutoo rek am na émission bu ma doon seetaan boo xam ne sëñ Mansour Sy Jamil bi mu ngi ci woon booba ak Penda Mbow ak keneen def naa ci def naa budul diine ak jamono sëñ Mansour gis naa mu génne ab document ne lii rapport bu boo xam ne américain ñoo ko def bind nañ ci ne xel koom mën naa développer Sénégal buñ ko buñ ko buñ ko toppoon jël ko jëfandikoo kon loola mooy tubaab moom ñi ngi jàngat di xool li fi nekk ci ay ay ay ay ressort lu ñuy tuddee ay ressort nga xam ne mën naa yëkkati économie réew mi léegi nag Sëriñ Tuubaa ci biir njàngaleem yan cëslaay yoo xam ne buñ ko xoolee mu jàngalee noonu lu war a mën a lu war a mën a tax ñu développé la ndax ñun kat fu fu ne jëlee nañ fa ay théorie ñii ay socialisme lañu xool ñii libéralisme ñii communisme ñu nekk moom lañuy ñuy xalaat a jël ngir tabax ci seen programme de développement waaye ba tey ñu jëlagun ñu delloogun nag ci njàngaleem kilifa yi njàngaleem suñu mag ñi rawatina Serigne Touba tubaar anhu dafa mel na loolu xalaataguñ ko ca ca ca bëreegul li ñuy wax ci principe yi nekk ci yoonu murit loolu moom ñun ñun bu dee ci biir murit gi moom mën nañu ñëpp xam nañ ko yàgg nañ koo waxtaane te mooy ni sëriñ bi statut bi mu jox liggéey statut bi mu ko jox maanaam ca loolu damay wax toujours ne sëriñ bi yeesal gi mu yeesal lislaam dafay mel ne moom moo ko indi te fekk te dafa yeesal lislaam waaye bu ñu ko xoolee ci biir lislaam la nekk waaw sëriñ bi li mu ni mu fi mu teg li ñuy wax kasbul xalaal fàggulu lew nga xam ne liggéey moyen la rek pour nit ki fàggulu lew estati boobu dafa am lu am solo lu ci am solo ci nekk ndax bu boobaa liggéey bi dafay nekk ak jaamu yàlla ca buñ ne jaamu yàlla la nit ki bu koy def da cay war a am engagement bu koy def da cay dugal ak sellal bu koy def du ca jéem a tricher loolu loolu ci gën a manqué la ci liggéey yu baree bari yoo xam ne boo ko deful muy diine nga xam ne da ngay def rek muy moyen boo xam ne ngir loo ca jële lay doon saa boo amee occasion def ca lu dul noonu ngir gën a bari le da nga ko def moyen boo mën a def pour am da ko def moo xam lu rafet la moo xam lu ñaaw la waaye soo gëmee ne kat yow mii da ngay liggéey ngir am lu lew loo dunde kon danga fexe ba liggéey ba lew da nga fexe ba doxale ko noo xam ne la nga cay jële jë nga cay jële day day lew loola moo tax ginnaaw liggéey day tax nga wut lu lew nga am lu lew te am lu lew dafay doon loo xam ne mooy sartu nga jaamu yàlla jaamu yàlla guñ nangu kon day mujj nekk farata ni nga xam ne noonu la jaamu yàlla nekkee farata moo tax sëñ bi ci bindam yépp dafay wane ne sàkk lu lew farata la ci jullit bu nekk ndax fàgg lu lew lu lew dunde lu lew mooy tax ñu nangu sag jaamu yàlla loolu kon da ngay daal di jox beneen dimension liggéey bi nit ñi liggéey dootuñu liggéey rek ngir consommation nga xam ne da ngay daw rek ci ginnaaw ay biens yoo xam ne da nga koy consommer na na nit ñi consommer économie bi tourné ñiy gën a consommer économie bi tourné rek bu boobaa day mel ne ci xalaqa muflaxa la ñu nekk waaye bu fekkee ne mbir mi kat da nga am jubluwaay mooy am lu lew loo jaamoo yàlla loola jaamu yàlla ga ku jaamu yàlla buñ koy wax jaamu yàlla guñ nangoo tax moo tax ci mbindam sëriñ bi dafay jàngale fu baree bari wax ne sa xam-xam bi ngay wut ak jaamu yàlla gi ngay def duñ ko nangu su fekkee ne li ngay dunde wut waaw laa yanfau al ilmu wala al ibada bil akli lil xaraami inda saada xam-xam beeg jaamu yàlla gi amul njëriñ su fekkee ne li ngay dunde lewut kon day mel ne dundee gi lu lew day nekk farata moo taxoon mu waxoon ni ne wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi xëyri waxami moo tax ci ñaanam yu baree bari yi mu doon ñaan ci dëkk bi wërsëg da maanaam lu lew la doon ñaan ci dëkk bi lu lew wa risqa hal at yabal alaali ca loolu fu baree bari ci ay ay jàngaleem ci ay jàngaleem bind ko ci maj moo beeg ci mañ moo beeg fu nekk dafay leeral ne euh, munoo nit ki munta amul jub munta topp suñ borom topp gu ñu nangu te sukkandiku ci di dunde lu lew moo tax mu ne dañoo war a jiital fàggu lu lew ci mbooleem yitte yépp waaye mu teg ca ñu bañ koo ñu bañ koo yàq lu lew ñu bañ koo yàq xoolal yooyu ay principe la maanaam principe bu jaamu yàlla jàpp jàpp ne liggéey jaamu yàlla la loolu lu ama am solo la loo xam ne mën naa régler suñ jafe-jafe yu baree baree baree bëri ndax kenn ku nekk bu gëmoon ne yëngutu bi yëngut di xëy ak gont ak jaamu yàlla la dana ca séddu suñu borom subhanahu wa taala dana ko sellal dana ko rafetal du ca du ca dugal lenn loo xam ne lu koy lu koy gàllankoor la ñaareel bi nga xam ne sëriñ bi jàngal nañu ko mooy maanaam jéem a am autonomie jéem am autonomie loolu feeñ na ci soññee gi mu soññee ci ñuy liggéey te bu ñu liggéeyee la ñuy am dugal ko ci fu am njariñ te bañ a jëggaani bu ñu amee soxla suñuy suñ bëgg a faj loolu mu wan wane wan wan ko ci wan ñu ko ci liggéey jumaa yi tuubaa ji nga xam ne sas yam sasa woon lam ca jàngale woon mooy loolu ci bu ñu seetloo suñu jamono ji loolu économiste yi duñ ko weddi bokk na ci li ñu gën a sonal mooy bor yi nga xam ne moo tegu ji suñuy ndoddi économie yi da ngay gis réew moo xam ne service de dette yi maanaam maanaam bu lebee waxuma la bor ba waaye jëmmi intérêt cay tege rek mënu koo fay wala wala boo bu ko bu ko dee fay mu waroon a développer am réewam dootu ko mënati nga xam ne maanaam la nga liggéey la nga am da koy faye lebaat investissement yi ñuy def yépp suñu réew yi boo ko seet seetloo ay bor la lenn loo xam ne dañ ne ñun ñoo koy ab liggéeyal suñu bopp defaral ko suñu bopp day mel ne ci murid yi rek lañ ko fi gis wala boog néew na feneen waaye état bi moom projet yu mag yooyu yëpp xëy na côté boobu moom sëñ bu ñëwee dina ci gën a leeral waaye da ngay dégg même suñu plan bi sax fan lañ koy gaaral dañuy dem ba ci bitim réew ñu dajale bailleur yëpp ñooñu mayuñu ñu saraxuñu ñu dañuy dañuy lebal. kon su fekkoon ne tàmbali nañ jéem a sukkandiku ci liñ am ngir développer suñum réew lu mu yéex yéex danañ dem ba moom suñu bopp ca bu boobaa suñu développement dana gaaw. boo seetloo réew yi nga xam ne daanaka dañ leen doon embargo bañ jéem a sukkandiku ci seen bopp day mel ne sax ñooñu ñooy tane ñi nga xam ne dañu leen di continuer di lebal rek ca buñ ko xoolee ba xooli tubaab bi daanaka bu ñuy investir investissement yi ñuy def ci seen ci sam réew ñoom ñoo cay ëpp lu ñuy gañe ci yow yow yow mi ñu koy def daanaka seen bopp dañuy dañuy liggéeyal seen bopp ci sam réew te yow sa sa ressource ci say ressource ci lañ koy faye say say say say sët ñoo koy ñoo koy fay ëllëg kon nga gis principe boobu nga xam ne sëriñ bi jàngal nañu ko ci muy jéem a am autonomie jéem a sukkandiku ci suñ bopp ci faj suñuy soxla kenn ku nekk la nga am nga def ko ñu demal suñ bopp loolu bu fekkoon ni gëm-gëm la boo xam ne saa bu ñuy tabax ak politique de développement danañ sédd principe boobu jàpp naa ne loolu nëgë ni tey lu baree bari fekk nañu réew mi mënal ko boppam ba man koo ba man ko ba man koo defal boppam bu ñu xooloon sëñ bi li mu ñu jàngal ci wàllu liggéey wa dem ba wan la ne la maanaam liggéey yoon la bu mën a àggale nit ci yàlla waaw ndax bu ñu demee ci masaalikul jinaan sëriñ bi mi ngi ñuy leeral ne ak njaboot mënees na cee jaar ba àgg ci yàlla wax ci ñett fa inna fi l iyaali pour turuqan lil jalil loolu principe bu am solo la maanaam nga xam ne ki jóg di dox ngir lum dundale njabootam ngir fàggu lu lew lum dundale njabootam loole mën na caa ame yàlla mën na caa àgg ci yàlla kon nga gis li li li am ku waxoon ne bokk na ci li gën a yéeme ci njàngaleem sëriñ bi ñu baree bari dañuy dem ca kaw toog fa di fa woo nit ñi pour ñu fekk leen ko waaye mu ne moom lu mu seetlu ab sociologue moo ko waxoon mu ne li mu seetlu dafa mel ne bi moom fi nit ñi nekk la ñëw fekk leen fa ànd ak ñoom di yéeg jëm ci kaw maanaam li nit ñiy dund ci la leen di wan nuñ ciy defee ba jaaree ci àgg ci yàlla subhanahu wa taala muy lu am am solo kon loolu ngir rek jox valeur ab liggéey te boo xoolee bokk na ci suñu jafe-jafe mooy nit ki li may wax ne suñu politique ñàkk gi mu ñàkk a dëppoog léeg-léeg suñ culture ba nit ñi duñ ko gëm duñ gëm ne jaamu yàlla la mën nañ caa jaare dem ci yàlla day tax da daanaka nit ñu bare bari ñaari dund la ñuy dund boo nekkee ci daayira bi wala nga nekk ci loo xam ne jàpp nga ne mbirum diine la nga am ca pëste sellal ca nangu caa def lu nekk waaye bis boo demee ba ca sa liggéey ba nga xam ne dangay jàpp ne liggéeyu tubaab la bu boobaa man nga caa wuruj mën nga caa tappale man nga caa ndax jàppu ne lii fooy wute yàlla la fooy wute yàlla la moo tax ñu mën caa dugal ay ay ay ay yu baree baree bari bari kon loolu ab tënk la rekk ci ne sëriñ bi bu ñu gëstu woon ci biir njàngleem principe yi nga xam ne moo ci nekk loolu mën naa développer réew maanaam du caagi nag ak système politique la bu mu teg waaye ay valeur la ay xiyam la ay mabadi la yoo xam ne bu ñu doon tëral ay politique éduca ay politique de développement bàyyi ji xel yar ci nit ñi jàngal ci nit ñi loolee nit ñi danañ ci gëm danañ ko gëm danañ danañ ci am engagement te bu boobaa loola dana réussir ndax jafe-jafe bu bari mooy la ñuy tëral ak nit ñi fañ nekk day wuute nit ñi duñ ko gëm duñ ko xam sax bu boobaa day doon loo xam ne population bi duñ ci yëg seen bopp duñ ko gis fi ne tey boo doon dox di laaj nit ñi programme de développement bi fi nekk plan développement bi fi nekk ñu bare bari xamuñu lu mu doon xamuñu lu nekk ci biir même ñoo xam sax jàng nañ waaye boo leen laajoon lu nekk dañ naan lii moom yëfi yëfi yëfi président bi rek la waaw nga xam ne yow foo ko doon tuddee sax day mel ne da ngay politique ndax génne dañ maanaam doon dañ koo def defuñu ko seen yëf li ñuy wax appropriation. jàpp naa ne ci gàllankoor projet yu baree bari wala programme de développement yu baree bari xëy na kon jàpp naa ne loolu rek doy na ngir ubbil euh, sëriñ Issa mi nga xam ne moom euh, économiste la ngir mu gën a mën a dugg nag moom ci vol domaine yi nga xam ne domaine économie la kon ñu ngi jéggulu ñëpp su fekkee ne guddal nañ wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu رباعية في إخدام قيل الورى بدا وفي كل سهر زيد ربه وفي سفر